barhaamu ba waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. dama doon xeex pour jigéenu jullit am dama doon xeex pour itam identité africaine man musuma nangu voile. toujours damay jël voile ñu indil ma soratu hijab ma jàpp soratu hijab daan ko jàpp di ko décortiquer di ko xool ba dissocier hijab yii ñuy muuru ak li ñuy tuddee véritablement li nekk ci biir Coran li ci ëpp tradition arabe la li ci ëpp ay tradition arabe la damay wax ni ñun suñu solo am lu ko gën a yiw ci àddina mën nañu solo ba yiw façon principe jàpp xale diko ko xale bu ndaw bo xamni ni xaj du ciobarem nekul aussi tradition Sénégal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa saxaabihi wa man wala mbokk jullit yi mbokku internet yi setan seetaan ngi nuyu ñep ku nekk ci turam ak jëmmam di wacce ñep seen wacce way di indi ay leral ci wax jo xamne soxna Penda Mbaw professeur yëkkati ne ko ci benn plateau ci télé yi ci Sénégal wax wax joo xamante ni dëgg-dëgg képp koo xamante ni jullit nga wala ngay askanu ci këru diine dana la métti damay wax ne alxuraan du foyukaay képp koo xamante ni du sa domaine wala xamoo ko bul di ci wax rawatina nga ci wax loo xamante ni leeru la te gëstuwoo ko xamoo ko bu fekke sañ nga tok ci lu am ni télé di yëpp di la sétan ngay wax ci miru muru bay tudd ne jàng nga ci alquran sar bu ñu wax suratul hijab alquran ci fat baqara ba naas lu ko dalé ci fatiha ba al jinnati wan nas 114 sar yi nga xamne mom la yàlla wàcce wàcce ko ci yon ci yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amul ben sar wo ci mëna gis bu ñu wax suratul hijab li ci gëna yéme moy ñi lay oyé universitaire ni jangalé kat nga borom xam-xam nga nga taxaw ne jàng naa saar bi décortiqué naa ko ñu ci yàlla sante muuraay ak duñ koy defee du noonu dëgg-dëgg soxna si dama ne juum te bàyyi alxuraan gi ngay foy lu tax nag ñuy wax waxuñ pour tontuwante wala waxuñ pour wax ak yow waaye dañuy wax pour leeral ndax alxuraan lañ laal diine gi lañ laal te suñ sëriñ suñ Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu mi nga xam ne mooy suñ sëriñ suñ buntu moom lenn rek la fonkoon def ñaanoon yàlla mu def ko muy karaamam mooy alquran تواخون نني فتجعلن حفظ كتابك الكريم كرامتي الى لقائك العظيم دافا نان يعني يالا يالا مو ديف القران موي كرامام با كيرك بامي داجيك بوروم تا القران مو نيكون دونم ليبام بام نيكي باري دي فاجو نيك تي فيبر بو ميتي يعني جيس موي سانت يالا نينا لو فيبر ميتي ميتي ميتي لو ميتي بي تار تار تار تار معي ذكر مولانا الجليل جلاله ماغي عندك القران تير يالا بو تيد بي واحنا بيوم يأتلوه جهرا وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله القرآن موم داما كوي جانغ بتشغي غودغي ما ديكو تاري تو لول لو ساخلا فين ماغي دونو ماغي ديف لولو كون كوكو نو ميلون تي القرآن تي جي بون دامي با كوني واخ ني جانغ كات لا گستو دي واخ نان سورة الحجاب امنا تي القرآن تا امو تي القرآن بون كو سيتاني دا فاي ملني دينا جي امو ньо في نيكال دي واخ ñoom ak ñu mel ni ñoom nañuy wëttandiku di fayee alquran wala ñuy fayee diine ji lépp lu ñuy wax ci alquran bu leen leerul nañ dem gëstu ji ko alquran kenn moomu ko yàlla ko wàccee pour nit ñi mu nekk njub ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ndax yàlla ko wax dalika alkitaabu la rayba fii hudan lil muttaqin muuru moom ci lislaam dafa am cislaay ci alquran borom bi subhanahu wa taala moo wax ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa soxna yi waxal sa doom yu jigéen ñi waxal doomu jigéen yi ñoom ñëpp ñu muur seen i cër ba mat kon boo waxee ne ni ko waxee ci suratul xijaab te suratul xijaab amut def ñuy jeexal Sénégal nag jàpp nañ ne mag moo war a muuru gone warta muuru te muuraay sax buñ xoolee ci lislaam gone la ko gën a yàlla sant ndax yàlla wax na ci alxuraan jigéen ñi nga xam ne dem nañ ba naagu at ci taar ak sëy maanaam dem nañ ba age ba seen taar mënatut a fitnaal kenn ñooñu buñ muuruwut amuñ benn bakkar wal qawaidu min annisaay loolu la yàlla wax ci alquran ne ñi nga xamante ni wal qawaayidu min annisaay allati la yarjuna nikaahan jigéen ñi nga xam ne dem nañ ba magee ba yaakaaratuñ ko leen takk ñooñu buñ muuruwuñ amuñ ci benn bakkar léegi nag Sénégal contraire bi la ñuy def dañuy wax ne man egg gu fu may muuru muuroo xale laa damay dox sama jamono te xale gi ki nga xam ne moom la taaram mën a fitnaal jullit ñi kooku la yàlla sant mu muur ay cëram muur léppam su demee ba egg ci yenn âge yi ba nga xam ne moo te fitnaal kese sax yàlla may na ko mu ñàkk muuru bu muurul am ci bakkaar waaye muuraay moom lu am ci saali ci diine nañ arrêté di fayee alquran di fayee diine gi te lépp loo xamante ni du seen domaine na ngeen ko bàyyi te tëral ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla wàcce ci réew mi jàmm may ñu leeru alquran may ñu barke alquran def ñu ci ñi nga xamante ni bu ñu déggee wax danañ xool la ci gën a rafet ñu topp ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان